bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala ala wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam mbokk de seeti nañ ginnaaw buñ jotee ay audio yu solo waaye yu bàyyi ko ci ñàkk solo itam mu def nam defati itam muy wax ju ñàkk solo daanaka li ma ko daan wax naan taasuk fecc la man gën na ko fedd leeti mooy koo xam ne audiom da koy déglu ba ba àgg doo ci dégg lu am njariñ doo ci dégg tam xam-xam ay wax lay doon yoo xam ne de la muy wax du doon dëgg ba noppi te ànd ak ne bu waxee lu dëgg day koy jéem a dëggal te xam nga dëggal lu dëgg mën su ko da ngay sonn rek bokk na ci fi mu njëkk a daanoo fi mu doon jéem a layee ne xëy na commerce mbaa mécanicien mënees koo booleeg di am xam-xam loolu li muy wane rek mooy gës gëstum bu gàtt ak ñàkk xam ne bu fekkoon ne ab gëstum yaaru na ci dundiinu saxaaba yi dana ci gis ñoo xam ne ay commerçant lañu woon te kenn du wax ne amuñu xam-xam wala ñu yore yeneen mécc yaakaar na jàngut taarix ku mel ni Ibn Awf démb defe naa indiloon naa ko sax <laughs> ñeneen ñoo xam ne foog naa kenn du tax du taxaw ne amuñu xam-xam xanaa loom gàtt gàtt xel moom dana nangu ne Abubakar ni Sadiq borom xam-xam loom xanaa <laughs> te Abubakar moom xam naa ne commerçant la boo demee ci séeru ala bi nubala ngi nettali ne te loolu sanad ak bu sax la ñu ne xaraja Abubakrin taajiran qabla mawti nabi sallallahu alayhi wa sallam bi aw aamayn defe naa noonu lañ ko waxe laata yonent bi faatu ñaari at Abu Aboubacar génnoon na ci génn goo xam ne commerce ko tax a jóg yaakaar naa ne bu lislaam rek eh, wala xam-xamu diine moom foogu mu ne am na koy ñemee taxaw ne Aboubacar amu ko woon xanaa lu waaye gàtt gàtt xel eh, bari yi ñu ci baree bari ñoo xam ne da ngay boo boo jàngee seen tarju bari nga gis ne ay métier lañ ne ay ponkal la ñuy doon waaye ngir gàttal wax ngir waa ji xam ne moom li muy wax xamu ci dara daa dëggalu firi rek abu xanifa te ci boppam boo gisee ñeen ñi naan tafaqaha fi mat xam ne bérébu commerce bérébu yaxantukaayam fa la nekk faqiih mooy abu xanifa de commerçant la woon boo ko jàngee ci misaal mën ngaa dem fu mel ni seeru alaami nubala bu dahabi wala wala taarixu Bagdad dana la wax ne kaana xazazan daan jaay xiz xaz zahabi nee na wa dukaanuhu maarufun fii daari amr net li nañ ne pekk ba mu yoroon maanaam bérébu jaayukaayam ba mu yoroon fu ñu xamoon la ci kër amru ibnu xurays comme ni ko zahabi tudde ci siyaar waaye demee ci alwaafi bil wafiyaat tamit nee na wa kaana xazazan yunfiqu min kiisihi wala yaqbalu jawaiza sultaan wala yaqbalu jawaiza sultaan may yi nga xam ne ak kado yi nga xam ne buur bi daana ko jox sax ko nangu moom da daan commerce rek di dundal boppam di dépenser ci yëfi boppam tawarruan lool na ngir sàmm moo ko yóbbe woon euh, ku tabe woon la woon tamit moom Abu Xanifata bu fekkee nag imaamul mazhabil xanafi ànd ak li borom li xam-xam bi bari ba mu jiite am ngir ci ñeenti ngir yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci àdduna bi fi mu ne kooka commerçant la woon kuy wax ne loolu mënta ànd ak jàng fiq say wax yow defe naa sax jër sa déglu te mboolem wax yi faadil di wax ne nii lay wax day wax la wax joo xam ne du tege fenn boo ko keppee nag waxewu ma ko woon noonoog fee jëmale woon nag nii naa Euh, waaye borom xam yi nga xam ne ay ay borom métier lañ woon boo lim sax day bari wax ji mu wax rek tegtale ne waa ji miinut kutubu taraajum dañuy jël rek ku mel ni ibnu tanasi al maliki ahmad ibnu muhammad al iskandarani al nasruddin dañ ko daan dàkkantale attekat la woon fële si iskandar yi te ànd ak loolu lépp commerçant la woon te teewut mu nekkoon ab àttekat boroom xam la woon même xofaatul xadiis ñi nga ay xaafis lañ am nañ amoon ay commerçant dañ ci jël misaal rek ku mel ni Xamaad ibnu Hibatillahi ibnu Fadayl al-Xaraani wari ma al-Aclaam li Zakali da gis mu ne min xofaatul xadiis daanaka fànn goo dem rek am na ci spécialiste boo xam ne yoroon mën naa yor mécc euh, ba léegi itam mën ngaa jël ku mel ni Mouhamad ibnu Moussa mi nga wax Razi kooku itam commerçant la woon comme ni mu ñëw ci al alam bu zërkali même yeneen mécc sax mën nga koo gis ñoo xam ne ay xam yu mag la ñuy doon ba noppi di no am ñoo xam ne dañoo am ay ay ay ay métier ku ci mel ar-Rassaa Muhammad ibn al-Qasim al moo doon qaadul jamaati ci fële ci Tunisie mi ngi juddoo Talamsaan euh, kooku itam ab menuisier la woon moo tax ñu ne kaana najjaaran yarsa'u yarsa'u al-manaabir xam naa moo tax ñu di ko woowee ar ànd ak ne loolu borom xam bu mag la woon ma ñëwaat ci beneen vocal xam naa fecc même ne bu ñuy wax fecc nag nañ nañ xool murid yeeg ñu ni mel loolu moom gàtt xel la ndax yaakaar naa ne tariqa murid moom <laughs> xëy na mën ngaa génne ñu koy tuddoo ñuy ñuy fecc loolu mën naa ne fecc dagan nag fecc dagan na loolu moom ab ab ab masala boo xam ne dañ koy jàngat waaye bu fekkee da ngaa bëgg a wax ni yéen wahabi yi du ngeen fecc de yaa ci erreur moom ndax kilifa ga nga xam ne borom xam ya nekk Arabie Saoudite yee gën a mag dañuy jaayanteeg moom muy Abdullahi moom moom muy muy buur ba man seen naa seen benn buur boo xam ne mooy amir ba <laughs> mooy malik bi nga xam ne moom la réew mooy jaayanteel euh, muy fecc di pàkkar ci pàkkar yu pàkkar garaaw a garaaw moom Abdullahi fan yi boo may topp xibaar yi ay concert la ñuy waati biir Arabie ndax ñooñu ay suufi lañ wala ay murid lañ yaakaaruma ko kon boo ko jaglee leen ñenn bàyyi ñenn rek yaakaar naa ne eh, yaa ngay juum ginnaaw seen malik ba nga xam ne seen boon xam ne sax moom lañu jaayanteel mu yor sax lu bari ci diine ji jiite réew ma ci état boo xam ne dañoo xam ne lislaam la ñuy àttee muy pàkkat ci yooyu pàkkat caaxaan yu bari ci ni ko euh, taskati xibaar yi leeral li ma nga fay am fi mu ne ci wàllu ay conseil rek ay musiciens yoo xam ne léeg sax sax image yi nga seen day saaxiri lool kon defe naa ne di wax ne murid yi ñooy fecc te murid yi ànd ak ne boo gisee kilifa gu tuddoo guy fecc foog naa boo ci da nga ñaar fukk yoo xam ne doo mës ñu fecc <laughs> loolu sax du wax yenu xam-xam ndax ab kuréel moom boo leen bëgg xam da ngay dellu ci seeni masaarir xool ba xam ndax ñooñu moom loola lool loolu lañ jàng lépp déet ndax damay wax ne bokk na ci gàtt xelu Wahhabi gàtt xelu Wahhabi saa yu xëyee tegu vidéo ne xoolal gaa yi ndax defe naa ne loolu ko doxee woon ci lislaam diñ bokk ñun ñëpp léegi nga bàyyi lislaam ndax bu ma daan def rek léeg-léeg ma jékki-jékki euh, seen bokk Daesh daal seen muy tiiri ay jullit ma daan ne wala muy rey ñoo xam ne warisu leen a rey ma ne xoolal lislaam wala ma dem Eh, jàng taarixu Muhammad ibnu Abdul Wahab ak i dongam nañ doon bind leetar yi jullit ñi di leen wan ne du ngeen di jullit ma ne xoolal lislaam boobaa dañuy wax bu yàggee dañuy wax lislaam baaxut waaye nag daa am point bu sew mooy yajibu tafriq bayna al islaam wal muslimin du seegeen kuy tuddoo jullit loo def rek loola mooy lislaam booy jàng lislaam da ngay xool alquran ak sunna lan lañ wax ne mooy lislaam ba noppi ca masaadir ya nga xam ne mooy masaadir yi ñuy sukkandiku ngir saxalub àtte ba xam lislaam ca yooyee ngay dellu xool ba xam lan mooy lislaam waaye li jullit ñiy def ci jamono jii boo ko xooloon da wax lislaam baaxul moo tax seen kuy kuréel di def dara nga ne bi nii lañ mel loolu ci boppam sax gàtt xam-xam ak gàtt moo ko waral waaye waa ji moom mooy waajoo xam ne lépp lu wax rek erreur la daanaka sax bu ma ko toppoon foog naa du fi jóg ndax du wax lu dul daanaka ndax xamut dafa xamut ba noppi di euh, di wane bopp di di di jéem a wane ne xam na loolu nag boo ko defee da ngay sonn dégg naa nag mu ne Moustapha moo waxoon ne xama am na ku doon euh, al azhar dis fa jàngale lu dëppoo rek al madhabul ashari loolu nag xam naa kon moom fàtte naa ko bu fekkee maa ko waxoon mën naa nekk nag ndax moom man du ma woote wane du ma juum li ma xam daal ci azhar moom mooy al manhajul ashari moom la ñuy jàngale loolu moom xam naa ko. waaye nag ndax waxoon naa ne kenn du fa jàllale tees bu te moom déet nag bu fekkee noonu laa ko waxee boo mënee indil audio bi baax na ma <laughs> li ma xam daal moom mooy du ma wax loolu dëgg te di ko tey moom loolu moo xam naa du <laughs> du ko def nii waa ji ñeme yàlla dal moom ñemewu ma ko man. bokk na ci wax yi nga xam ne waa ji wax na ko te du dëgg mu ne Moustapha moo génne boppam alquran ak sunna alquran ak sunna de li fàttaliku ci. sama génn fa ba nga xam ne jéem naa faa dugaat ba sonn mënuma ko dañ maa génne te xam naa ne buñ ko weddee itam mën naa leen a fotool euh, page ba nga xam fotool fa nga xam ne mooy image ba xam naa sax naa ko dugalaale pour ñu xool ki ma génne ak date bi ma génne njëkkoon naa faa dugg nag doon waxtaan ak ñoom ci masalay xam-xam may fàttali nag ne fàttali mësuñu si ab débat bu ñu organisé mësta am lii muy wax nii dara du ci dëgg nee na moom Moussa nee na Moustapha moom maa ko jàngal tan xewxal manaat <laughs> laa xawla wala quwata illa billah ñeme yàlla boo ko defee lu la neex wax wax na itam yeneen wax yoo xam dara du ci dëgg mosuma mosuma débat ak li li ñuy def mooy damay dugg laajub laaj wala mu laajub laaj xëy na ñu ne ca loola di waxtaan waaye débat organisé mosu ko def te daa mujj daw te bu ko weddee ma ma tegal ko euh, audio yi daa mujj daw Moustapha Cissé lool loolu duutuñu ko nangu léegi euh, thème bi nga bi ma fi teg bi ñu fi teg la ñuy wax waaye doo mën a indi say laaj te boo damay laaj Fadel ba xam ne Fadel gàgg na fi ne mënta mu dugg wax loolu te buñ ko weddee ma tegal leen ojo yi ma garde maa ngi ko doon laaj ci genn mu doon ko jéem a lay far far lay ma képp ko ci mu yor wërlu foofu foofu foofu lañ tàggoon ci alxuraan sunna boo xoolee audio yi ma fa mujjee def loolu la maanaam képp Fadil bu Fadil mënut a dem ñu Moussa Cissé dugg ne loolu duur ñu ko nangu léegi ñooy teg tam te ci tam bi ngay wax ci lii laa tàggoo woon ak ñoom ci alxuraan ak sunna li ma ko def euh, bu fekkee audio bu ma wax rek la kon li muy wax boo ko xoolee xam ne dara du ci dëgg te mën na maa tegaat audio yi mi ngi ak man xam naa sax naa ko dajale teg ko ndax ñi ñi xam ne waxut dëgg man maa ko képp li ma koy laaj mënu cee tontu. te te ku déglu audio yi ba mu egg da xam ne noonu la demee biñ xamee ne arrangé wu leen ñu dagg waxtaan bi euh, defe naa bokk na ci li waa ji wax mu ne woo naa Moustapha débat ma ne ko loolu ak ñàkk jom la Moustapha ñaata yoon la la topp ci débat ngay daw ñaata yoon yónni naa ci yow nit sax ñu envoyé la débat ñu ne leen sax nañ wut groupe spécial nga daw nga toog ba mu neex la nga naan naa naa koo débat man d' accord naa d' accord naa débat ok mais li la doon laaj ci sa pas-pas ak ak ndax yéen a dëppoo ak alxuraan ak sunna wala ndax seen sëriñ si dëppoo nañu ak alxuraan ak sunna naa ñu débat ci débat boobu ñu tàmbaloon taga raw ko bu noppee nag amul benn problème loo ma woo ci mouridisme lu mu a doon naa la ca dinaa la li nangu mooy woolam débat nga daw bëgg wëlbati débat bi di ma woo feneen loolu lii laa dun man débat bi ma la doon woote nga départ te ma yónni ci suñ bàkki jub nga daw nañu àggale débat boobu ba noppi <laughs> bu fekkee bu fekkee nee nga góor ngi léegi nag buñ ko àggalee ba ñu ba mu leer ñëpp ni yow nituk bi daa nga xam ne ci bi daa ne bu ko defee nag ñu xool nag muridisme lan la amul benn problème man boo am ma ci woo ak masalam moo ma ci woo naa la ci wuyu mais bi bi bi ma la doon woo nangu ko ba pare. waaye depart ba pare naan non non non foofu du ma waaye waaye ma neex la ñuy wax léegi loolu mooy waxi la yow boo amoon jom doo wax loolu. wax na tamit ne Ibnu Xajar ak Nawawi bokkuñu ak ñoom pas-pas lool na yàgg yàgg nañ ko wax ñoom waxabe yi umpule nag moo tax ñu di ko wax dañoo xamul li xew waaye ñooñu wuute wuñ ak asaawere yi Nawawi Ibnu Xajar seen ngirum waxabe yi itam dañ koo dajji. te bu ko weddee nañ ci ni xas nañ ci débat ak moom ñu xool ñaar ñooñu ba xam ndax dajji nañ seen pas-pas am déet ak ndax wuute nañu ak asaari wala wuute wuñu ak asaari ñoom mënuñoo ràññale ku ci ay masala ak ku wuuteeg ñoom loolu ñoom ñoom mënuñu ko xam xamuñu ne même asaari yi dëppoo wuñ ci masala yëpp waaye bu fekkee miinoo rek koo xam ne day tararar yi waxte li muy wax du ko vérifié miinu dossier bi muy wax lu ko neex wax Fadil wax dëgg yàlla wërta wax ruwaay bi dala daa wërta wax ci boppam te lii may wax nag wax waxeewu ma ko xol mais dama ko waxee am ngëm-ngëm xam naa ko amut amut xam-xam bu mu war a waxee genn fànn goo xam ne Fadel xam na ko man xam ma ko dinaa leen tegal yi nga xam ne moom lañ mujjoon ne xaas ngeen gis fi mu daawee woon nga xam ne ba moom laa mujj wax ci ci woon ci suñu débat ci ci loolu sax doon débat yi question yu ma ko doon laaj mais mosuma sax moom débat bu ñu organisé ñu moo xam ne dañ dañ ñoo organisé ñu ñaar ñu débat li muy def kay mooy la làqutu fenn may wax wax mu yóbbu ko fenn làqatu fay wax du du ñemee sax jàkkaarloo ku ne ragale mosuma ko gis waaye juddoo ba léegi ku ragale di faatu mosuma ko gis. <coughs> beneen ma fàtte woon mooy euh, mbirum <laughs> sëriñam boobu mu doon wax naa ay borom xam ñoo ne euh, xam bu mag la moo xoon ko ne ko bu fekkoonte ne benn waaye daa def université Iran par exemple ay xam yi Chia ñëw ko. borom xam bu mag nga yëf yi jaar na yoon nangam nangam fekk moom la muy daj aqidatu ahlu sunna wal bu la wane téere ba foog naa doo yem ci kii borom la bi mu si ñëwaatee naa ne ci tontu daanaka waxe gone rek la waxaat nga koo xam ne la wax amut ci téere loola bu fekkee borom xam taxaw na ku ñuy wax borom xam taxaw na la yëf yi jaar na yoon li nga wax dëgg la te fekk yow li nga wax ay tadlis dong nga ci nekk ak wax yu du dëgg ak weddi loo ñoo xam ne seenum ngir wér na loolu laa ne la ña koy wax borom xam nga war nañ ko mën a wax ndax moom ñoom ñoo bokk luñ ne loolu laa tax ñu di ko <coughs> waaye boo ko waroon koo xam ne ci ahlu sunna wal jamaa la bokk dëgg yëkkati ko bu gisee day wax ne kii euh, yaakaar naa yar la la aajo woo waaye di su ko tuddee ne aw na fa mu war a aw ndax téere boo xam ne yow daanaka ay tadlis ci nekk tuumal ay nit ñoo xam ne la ñuy wax waxuñu ko te lii ñuy wax ne waxuñu ko suñu bànneex boo taxawee te nangu cee débat daañu la wan lii ñuy wax ci téere boobu ngay wax bu fekkee ñeme nga ko yow nag aw làmmiñ moom rëy nga ko li gën a bari taxaw moom daanaka yomb la li ma seetlu ci yow waaye lu mel noonu kenn du wax ne <laughs> borom xam la ña koy wax dañoo ne ci biddaa moo tax ñu di ko wax mais nga xam ne ci sunna dëgg lañ nekk bu ñu gisee dañuy wax kii la waaye duñ ne borom xam la. <coughs> loolu laa loolu laa doon misaal ci ci kii même bu fekkee fu ñuy wax ab université la ñu ne fa gën a kawe lañ ko génnee ñu wëyal tappale yu mel noonu ñooñu ña koy ña ña borom xam la ci boppam sax la ñuy la ñuy wax ñoom ndax am nañ amaana ci seen bopp ñooñu la ñuy njëkk a yedd ndax bu fekkoonte ni mel nañu nañu war a mel lu mel noonu yooyu benn xamuñu bu fekkee xamuñu euh, waruñoo dugg ci lu mel noonu bu fekkee xam nañ itam yoon wi ñu aw tariqa ilmi ndax ko xam ne dafa def ay tadlis tuumaal ay yoo xam ne defuñ la ñuy wax defuñu ko sos ay textes yoo xam ne niwut ci fa mu koy koy delloo lu ne mu def ko ñu ne ko yow léegi jaar na yoon loolu li ko war li muy tekki rek mooy ay gaa yu biddaa lañ yoo xam ne kenn ku ne ci biddaa daa daa bind ñu wéyal lam bind loolu lay tekki loolu du xam du xam-xam loolu du xam-xam norme gaa yi biddaa teg loolu tekkiwu dara gars bi dama nañoo teg eh, ay mbir nii fii ngay aw ñu nangu ne eh, jaar na yoon fekk waaye dafa aw jërut la mbind du amul daa jaxase ba tegul téere rek ba teg lu ñuy tuddee téere loola la ci jaadu woon mooy yow lii nga wax ni amul ndax boo delloo ci masaareer yi nga koy yi nga koy asu ak yi nga wax ne ni la gars yi bi gars ñu noon kon benn ña ko doon eh, taxawu ñooñu xamuñu dara. te loolu yaakaaruma ko li ma gën a yaakaar mooy dañoo ànd ak moom ci tëdd lycée loolu laa yaakaar bu fekkee nag ñoo ko tey moom mooy yées te moom laa gën a yaakaar